Heavyweight.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 pëtëlëw saa waay defeere nañ ko fi mu ne ca parquet bu Louga ci wàllum càcc scandale financier boobu nag lëmbe na dara ak li ko wër li feeñal waa ji nag mooy banque bi dañoo constaté ab xaalis bu takku buy réer naka noonu ci la ñuy yebalee ñiy càmbar banque bi muy auditeurs yi ci lañ defee de sant ci banque bi daal di caytu xool gis ne juróomi million nee na may cin faqul banul ci la ñu arrêté bi sa nag li ko wër mooy caméra de surveillance yiñ fa def ndekete woo sa waay da doon profité ci heure pause yi dellu ci bërëb bi ñuy denc koppar yi di roppanti xaalis ba ndànk-ndànk ay waay waxoon naa leen ko réew mi feebaru sàcc fi am waa ji nag bi ñu ko arrêté ba yóbbu ko ci yoon ca gendarmerie bu daara dafa lank ba tëdd ci naaj bi ne deful lu ni mel ah waaye layam yooyu nag yeyul gendarme yi ba fi mu ne defeere nañ ko ci parquet bu ci wàllum sàcc gu toll ci juróomi million ma ne mooy la woykat ba waxoon rek loo moomul ba ko fa waaye réew mi fi mu ne dafa mel ni feebaru sàcc fi am moo tax ma ne jàngoro gi dal réew mi moo gën a graaw corona la wax kii tamit ab candidat bu BFM la di ab élève troisième moom it dañ ko teg loxo li ñuy tuddee flagrant délit wolof di ko wax loxo ci poos ci wàllum càcc ma waxaat leen ko nee naa leen réew mi feebaru sàcc fi am élève bi dañ ko accusé ne ay matériel yu takku la ne tuŋaañ moom daal bàyyiwul ordinateur imprimante haut-parleur ventilateur lépp la ne tuŋaañ ca centre régional de formation pour le personnel de l'éducation ca Diourbel kay te nee nañu wàllum càcc googu nag mu ngi ko def diggante ak 11 juin bi weesu ñaari rësalëram ya nag di em ngoom ak ef jaaw ñoom ñeppit yoon teg na leen la xoo ay waay bàyyi leen jëndaalalu sàcc moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw korona la wax livreur bi tamit li mu def ëpp na ndax moom it jàngoro ji dal ñaar ñi ma njëkk a tudd muy feebaru sàcc gi wàllante ci réew mi ni korona moo ko dal waa mu ngi wuyoo ci turoa Aspen di liggéey wàllum livreur moom daal li mu def mooy sàcc juróom fukki portable ak ñaar ci ab magasin ëppatalaw ma ne li mu ne tungañ boo ko xaymaa ci xaalis toll na ci fukki million sa waay nee caabi magasin bi la jëloon daal di koy dupliquer daal di téye bi xaar ba heure julli borom dellu si waat ñëw ci palaas bi nettu ngaañ juróom fukki portable ak ñaar ak yeneen i accessoire waaye nag mujjul sedd ci moom de ndax yoon mujj na ko teg loxo ba tribunalu Géejawaay atte ko ba tëj ko ñaari atu kaso alamaan ko lu toll ci juróom ñaari million ay waay bàyyi leen sàcc bàyyi leen sàcc waay moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw korona la wax ay waay xale yi jàng leen te bàyyi pomi ay élève nag man la ma ca xamoon mooy bi kaye livre wala toog ci seen di jàng waaye nag léegi xale yi li ñu def seen itte moo mooy toxaan ak farantu la ñu nekkee ci école yi koo ci gis ma sol col ko gu bon wuti école de xale yi buñ doon doxaan yam ci rek mu neex waaye dañuy doxaan boy burle faruus yi lépp lañu ñu xam waxenn jaañ mi nag ab élève am ñaar fukki moom daal dañu ko jiñ ne moo ëmbal copinam bi di am 16 ans fa mu jaare fa ëmb pëp pëp xale yi nag ndekete fañ doon defee seen tojaange jooju mooy ca biir l'école ba ndax xale yi dañ doon bàyyi ba ñëpp wàcc ñibbi ñu des fa ne dañuy réviser ndekete xale yi daal la ñuy réviser leneen la moo taxit ay waay di leen seetlu xale yi ba si ba laay boobu mujj cee am li ci gën a doy waar nag mooy ci kanamu attekat bi gone su ndaw si jigéen ki dafa jël défense su copine bi ndax dane attekat yi xale bi mësu ko everger gannaaw ba mu ne may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 loow leen réew mi dana tas laa leen wax deux cent soixante-quatorze milliards ci wàllum phobie phobie yaa ngi toj dëkk bi de réew mi daal dafa mel ni phobie yaa ngi taw taw taw comme nawet de mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje samdi ci yeneen xibaaru buzz